wa jannatan li saalikin muridi wa jannatan an haadikin maridi ngir tàbbal seen loxo jamale ko ci ndimmalin jagleel ñi loru ci mbënn mi ci dëkk bu tedd bi di Touba fekk si nag ndigalal Cheikh Mouhamadul Mountakha Mbacké xalif général de Mourides tax na nag kuréel gii di rekab lëkkale ay cadre yu féete fii ci Bawol def délégation bu takku ñëw fii ci kër sëriñ Touba gi fekk si kuréel gi di junnatul liman nazamahu jébbal leen seenu barkeelu jëf ju am solo ji nag ñu ngi ko amal ci gaaw bi fukki fan ak juróom-ñeent ci weeru octobre atum 2024. ñoo ñëwoon di wuy si woote bi sëñ Muntaxa woote ñu man ko jàppale ci liggéeyu Tuubaa yi pour assister les populations sinistrées ndax ku nekk xam na li xew ci Tuubaa depuis taw yu mag yi mu fi tawoon ñun dañoo indi participation réseau de cadres du Baol ci ñaari pàcc pàcc bu njëkk bi mooy lu ñu jot dajale mu néew ak su bari waruñu ko xeeb sax ndax sëñ Touba dërëm ak milliard la yemale ñu dajale ko indi ko teg ko ci loxo commission bi mu nekk suñu participation financière teewul sax ne ci biir récap am na membre individuellement ñoo xam ne sax participer nañ ci yeneen anam am na ñu versé ci compte bi am na ñu envoyé Wave am na ñu envoyé Orange Money am na sax ñu bokk ci rassemblement des hommes d'affaires murit mooy ñi fi ñëwoon y un mois bokk ci rekab mais ñun dañ kuréel bi ci boppam dafa war a jëmmal boppam joxe participation moo tax ñu daje dajale lu tollook deux millions deux cent mille francs fa ñu indi ko pour RECAP. bun sukkandikoo sax ci kàddu yi nga xam ne ni bàyyi ko na ci ki doon wax ci turu RECAP seenug barkeelukat fas nu ko yemale foofu am na yeneen naal yoo xam ne ni fas nañ ko yéenee jàppale askanu Touba rawatina nag ñi loru ci mbënd mi RECAP mu ngi koy gën a leeralaat kuréel gi di junnatun moo tax ñun ñu bëgg suñu participation bu mujj bi mu nekk ay journée de consultation médicale yoo xam dañuy jël ñetti fan ngeen tànnal ñu ñetti bërëb ñu indi lu mat ëpp bu doon mat ñaar téeméeri médecin ñu indi ko ak i sage-femme ki infirmier toute catégorie professionnelle confondue indaale ay garab ñun ñoo leen di fayal transport indi leen faj nit ñi xool seen wér-gu-yaram lu mat ñetti fan yéene boobu lañu am bëgg ngeen ñaanal ñu ci ñu àgg ci. kilifa yi ngànk liggéey bii di Junatun ñi nga xam ne ñoo dalal RECAP di réseau des cadres di Bawol ñoom nag yëkkati nañu ay kàddu di sant bu baax a baax ci taxawaay bi nga xam ne nii doomi Bawol yi nag defaat nañ ko jëmale ko ci ndigalal Cheikh Mouhamadou Mountakha lile. Euh, ñu ngi lay sant bu wér seen jaxate mboolem waa RECAP ak ñi nga àndal. Euh, sëñ Tuubaa mi tax ngeen def ko ak Cheikh Mamadou Mountakha mi ngeen ko seqal euh, ñoom xam naa ne kuy ñoom lu baax lu ne wóor na ne euh, ñoom ñemewuñu bor dañu amuk pay kon yàlla nañ leen fay lu kawe seen njor kon ci turu junnatun muy kuréel boo xamante ne ni nga ko xam ni ngeen ko xamee Cheikh Mamadou Mountakha moo ko sos bi mu ko sosee it moo joxe tur wi boole Hizbut Tarqiyyah boole Touba ca kanam. boole tamit euh, commune bu Touba wax ne nañu ànd xam ne ñun ñett moom moo ñuy ñeenteel sëñ Muntaxa nag ku ñeenteel kon murit yëpp duggaale nañ ci biir ndox mii nag euh, am na ñu loru ñu bëri ñu ci ñoo xam ne am na ko ci Touba kon lii ngeen indi mu jëm ci li nga xam ne dafay delluwaat ci nit ñi euh, jëf mënu ko fee gën a rëy ndax jëf yaa ngi koy natt ci yéene yi yéene ji moom moom yéene murit la kenn amul njëgam sëñ Tuubaa day wax minal xadiimi ilal maxdoomi misaanu laa yantaxi ajruhu kaylun wa misaanu amul benn balance boo xam ne mën naa peese pëstéef di ñaan suñu borom gën a jëmale liggéey bi kanam waaw jërë ngeen jëf. kuréel gii di Junatun Liman Nazamahun ci fàttali Cheikh mën Mountakha Mbacké xalif général des murit moo ko sampoon ngir nag ñu taxawu ñi nga xam ne ni dañoo loru ci mbënn mi seenub liggéey ñu tàmbali ko boobaak léegi toll ci weer. ak léegi nag ay mbokki taalibe bàyyeekoo nan ci ay gox yu yaatu ci biir réew mi bitim réew fasantikoo ci ay mbooloo moo xam muy daayira entreprise société ak ya ca aju ñëw nag indi seen àddiya liggéey bi nag ñu daal di koy xajale ci ay bànqaas yu toll ci juróomi commission booba ak léegi nag ku nekk ci ñoom yaa ngi def sa liggéey ànd ci ak pëstéef ngir nag li nga xam ne moom la Serigne Mountakha Mbacké di xaar ci ñoom ñu mën ko amal ci anam yu mucc ayib li saalik muriidi wa jannatan